Ousmane seen Warkh directeur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. voilà tey ñu waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy ganale gi nga xam ne ñu ngi koy waajal kii di euh, secrétaire d'État américain di Anthony Blinken euh, muy waaj gannaaw nag nee nañu benn tournée bi koy yóbbu Afrique euh, Kenya Nigéria laata muy mujjee Sénégal tey nan nga jàpp ne mooy enjeu wu dalal wala ganale googu ñu koy ganale ci Afrique. waaw mais président bu bees moo am États-Unis secrétaire d'État bu bees xëy na aussi politique bu bees. loolu war na tax d'autant plus que Biden président bi waxoon na ko nee na man fa teewuma Afrique fa Afrique jox naa ko bopp te dinaa fa fa dem bon fi mu ne Blinken ñëw kooku ça coule de source loo xam ne lii wartoon a bett kenn mais wartoon a bett kenn aussi ci taxawaayu Sénégal ci Afrique parce que soo waxee diplomatie euh, ci Afrique Afrique yëpp surtout Afrique de l'Ouest nag euh, Sénégal mooy li ñuy wax ci anglais driver countries mooy dëkk yi nga xam ne mënoon na ñàkk a dugal Euh, soo gisee dem na Kenya comprendre nañ lu tax dem na dina dem euh, Ghana dina dem Nigéria mais munta bàyyi Sénégal mais ci ñu ràññee ci ne aussi que Sénégal mooy benn dëkk bi nga xam ne mooy lakk français boo xam ne bii boole nañ ko ci visite bi loolu nag dafa yàgg a yàgg am euh, Sénégal lum tuuti tuuti ci maanaa superficie deux cent ou trois cent mille kilomètres carrés ak 16 euh, million ou 17 millions d'habitants ak aussi l'économie mu ngi góorgóorlu waaye tollul fa war a toll mais daraja Sénégal ci affaire u diplomatie daraja Sénégal ci affaire u lépp loo xam ne ni mu doon mu ngi doon international Sénégal am na fa baat am na fa jëmm boo xam ne bi munuñ ko def entre parenthèses bañ fi ñëw je crois que su fe su fekkoon ne ñëwuñ fi su fekkoon ne ñëwu fi dina mm-hmm. dinañu jaaxal mu ñëw fi man bettu ma c'est comme su fekkoon loo xam ne li war na am mooy mooy bi bi bi président Obama. Hmm. ñuy ñuy nas ñuy nas wisitam man waxtaan naa ko fii ak ay universitaire ak ay euh, euh, intellectuel mais aussi ak ambassade bi ñu ni euh, Barack Obama mun na bàyyi bépp dëkk sauf Afrique sauf Sénégal. Hmm. effectivement ñëw na fi def visite boo xam ne bii visite bu rafetoon la te ñu koy rafetlu. et justement lan moo waral importance boobu lan moo ñu boole ñun ñu nag waa États-Unis lu ñu am en commun. da ngay Sénégal ba mu indépendant. Hmm. ak Sénégal avant même bi mu indépendant parce que AOF nag quand même fa moment boo xam ne bi Sénégal moo doonoon bopp bi nga am président bu mel ni Léopold Sédar Senghor nga xam ne àddina wër kër tukki na fa mm-hmm. te fépp fu fi tukki bàyyi fa mandargaam ci culture Afrique ci culture Sénégal ak ci xam-xam mm-hmm. te aussi mu doon koo xam ne kii moom daal solution yi nga xam ne doon solution extrême mosu ko bugg mhm. mosu ko bugg d'ailleurs d'abord régime am c'est un régime socialiste mais socialisme du communisme socialisme du capitalisme ci mhm. diggante bi di doxal doxal boo xam ne bii yaakaar naa ne mun nañu wax ne doxal bu rafet la mhm. te nga xam ne aussi fépp fu mu ubbee woon gémmiñam di wax baatam dañ koy sàmm déglu ko raaya yi université yi jox ci àddina si suñ ko doon compter bare na lool lool lool lool lool. Mhm. am na sax koo xam ne kii dafa ne ci ci tàngam. Senghor mooy président bi nga xam ne moo gënoon a am xam-xam ci àddina si kooku nag benn critique boo ko wax du mën naa ko wax. donc su fekkee ne Senghor jëmbat na garab gu mel noonu. yeneen président yi ñëw aussi di ko suuxat di ko suuxat bañ toll fii mais Sénégal donc taxaw na taxaw boo xam ne bii. Mhm. mais munuñ ko munuñ ko def de côté. Mhm. soo waxee l'économie l'économie bi euh, réyul lool lool lool mhm. mais soo waxee yeneen élément ci culture ak yeneen ak yeneen mais Sénégal mun nañ ne en tout cas li muy doxalee xëy na su fekkee ne mënuñ wax ne rafet na à cent pour cent am na lu ci gën a bari euh, loo xam ne liy jekk na te war nañ ko naw je crois que loolu mooy position Sénégal ci àddina si te ñu koy sóoraale am na solo lool loolu moom mandargal tukki bi moom Sénégal bokk ci te am na yeneen tukki yoo xam ne xëy na koy nas mhm. Sénégal na ci bokk ci weer yi ñu jëm 2022 ñoo ngi waaj Macky Sall mu nekk ci bopp Union africaine ndax ñëwu Blinken bi am na relation. waaw mais xam nga ah, am na président yu bari yoo xam ne yii ñooy ñooy président en exercice Union africaine. Hmm. mais seetlul seen taxawaay ak taxawaayu Sénégal fàtte ngeen ba Abdou Diouf doone président de de de de de de de l'Union africaine. Hmm. Euh, euh, euh, jéego yim jéego ci diggante. Ah, ah, Euh, Afrique du Sud guy bëgg a jëm indépendance ak euh, ak waa apartheid. Mhm. loolu ñu ngi koy fàttaliku ba léegi. Mhm. Euh, c'est c'est président Négocier de ya mhm. ak jéego yim def ak jéego yim def avec les frontline countries mooy pays yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ligne de front yi di dimbale ANC. loolu ay jéego yu rëy la. donc su fekkee Euh, Sénégal jël na Union africaine je crois que day dooleel liggéeyu Union africaine te aussi Blinken ñëw fi seet si ko beneen beneen beneen explication la hmm. moom mooy euh, bientôt moom mooy yor baatu Afrique dans ces conditions jaar ci moom waxtaan ak moom dafa war hmm. loolu aussi dafay yokk rek raison yi nga xam ne mun nañu expliquer euh, lu tax Blinken di ñëw mais même su fekkoon président Sall doonul président Union africaine dans quelques mois à venir hmm. que secrétaire d'État africain kii Euh, secrétaire d'État États-Unis ñëw fii hmm. euh, eh bien lu waroon la ma laaj la secrétaire d'État bi nekkoon avec Trump hmm. ñaata pays africain la la la la la est-ce que Sénégal boolu bokk ci woon hmm. Pompeo Mike Pompeo ah mu donc euh, kon daa fa a dire que daraja Sénégal moo ngi fi ba tey te nañu góorgóorlu sàmm ko. ndax am na lu bëri li nga xam ne euh, loxo États-Unis moo ngi ci ci wàllum coopération bilatérale fii ci mim réew. a ah, waaw mais am na am na secteur yu bëri yoo xam ne ñu ngi fay coopérer wax naa leen ko. Ah. soo demee ci milieu universitaire bi man xam naa ci dem puisque foofu lay yëngu. Ah. coopération bi am na lool te am na dëgër te dëgër na te ñu ngi ciy bénéficier. parce que programme Fulbright bi nga xam ne permettre xale yi. Euh, kii universitaires yi ñu dem gën a gën a ñoŋal seen xam-xam fële États-Unis am na euh, le programme bi nga xam ne euh, Obama tegoon na ko en place muy yali nga xam ne day tàggat ñi nga xam ne ñooy doon les prochains leaders mm. sur le plan économique sur d'autres plan mm. mais mu ngi dox ba léegi am na yeneen programme yoo xam ne ñu ngi dox ay bourses yoo xam ne ñu ngi dox formation militaire baa ngi fi pour affaire formation euh, am nañ coopération bu dëgër mais pour coopération yeneen yi aussi fàttaliku leen ne Sénégal moo bokk ci pays yi nga xam ne néew nañ mais am MCA MCA dans un premier temps tabax na pon ak tabax na ay ay ay tali yu bëri mm. surtout du côté de de du Fouta mm. maintenant ñu ngi dugal seen loxo ci énergie bi je crois que programme bu am solo la ak euh, million de dollars yu bëri yoo xam ne yi dina permettre améliorer situation électricité bi avec euh, le le le deuxième volet bon coopération militaire bi aussi mu ngi fi comme coopération bi nga xam ne ñu ngi koy doxal ci lu mel ni agriculture euh, et boofu USAID jéego na fi jéego yoo xam ne yi ñëpp ràññee nañ ko je crois que coopération bi wax maintenant ñu ne Sénégal dina produire gaz ak pétrole est-ce que loolu aussi coopération bi na law jëm foofu hmm. xëy na mun na am ñu ne nag aussi euh, aussi euh, kii bi euh, réchauffement climatique Sénégal engagé wu na fi xam ngeen la grande muraille verte lan lay États-Unis mun a def pare jàppale Sénégal ci boobu domaine yooyu aussi c'est autant de secteurs yoo xam ne yi waxtaan ceeg Sénégal mën na am mais tey am na ñi nga xam ne si ñëwam gi tey na seen xel parce que ci benn entretien bu yàggul ñu ngi ko dégg mu ne moom dina def kem kattanam pour gën a euh, développer politique étrangère u LGBT ndax li ni mel war naa bokk war nañ ñoo jot mu bokk ci ay waxtaan. waaw mais xam nga man pour man dëkk bu nekk yaa ngi am nag sa liberté nag kooku commencé wul moom. Hmm. commencé wul ci moom bu ñu commencé ci Obama. Obama bi mu nekkee ci nguur gi ambassadeur bi fi nekkoon moom ci boppam moo ne ma Euh, euh, bo président Obama wax nañu ne affaire boobu droit de l'homme boobu il faut ñu waxtaan ko xëy na nañ ci waxtaan mais waxtaan ba mu doon waxtaan fii lañ ko organiser. Mm-hmm. Euh, sénégalais yi ñëw ay personalité yu bare ngi woon mun naa la jox ay tour mm-hmm. mais dafa wax ba pare ñoom ñu dégg li ñuy dégg mais xam li ñuy xam c'est ça mm. dégg li ñuy dégg ci waajooju ci ci ci ambassadeur bi loolu bokkoon na ci élément yi nga xam ne tegoon na ko ci table bi pour waxtaan mm. mais sénégalais yi ñëwoon fii seetaan ko ñoom i tamit tontu nañ ko tontu bu jekk mais xam li ñu xam mm-hmm. je crois que euh, droit de l'homme c'est vrai que existé na mais jël sa loxo ba pare wañ ko ci ginnaaw je crois que loolu diplomatie sax permettre ko xëy na dinañ dinañ jéem a seet naka la ñuy dimbalee ñooñu mais euh, je crois que réponse Sénégal euh, président Sall joxoon waxoon na ko déjà euh, euh, président Obama ne ko ñaari dëkk lañ lañ nekk ñaari xeet lañ xeet bokkuñu histoire nécessairement donc sociologie c'est-à-dire que valeur yi nga xam ne ngëm-ngëm yi nga xam ne ñooy doxal suñ ñaari dëkk yi mun na am na foo xam ne fii mun nañ daje am na foo xam ne fii mun nañ uute donc bàyyi leen ni ñun tamit ñu am noo xam ne nii nañ jéem a def pour pour wax wax yooyu euh, problème boobu nga teg ci table bi naka lañ koy xoole donc euh, Barack Obama am na xoolinam mais euh, président du Sénégal am na xoolinam américains yi am nañu xoolin seen xoolin euh, sénégalais aussi am nañ seen xoolin mais waxtaan munte ñàkk dinañ ci waxtaan certainement mais cela ne veut pas dire que États-Unis day ñëw pour ne Sénégal defal lii defal lii defal lii je ne crois pas te loolu xëy na Sénégal sax daf ko dul nangu. professeur ñu jeexalee Gambie. Euh, politique étrangère ba tey ñoom ñoo ngi waajal ay élection ndax la nga gis wone na ne firnde na ne ci élection yu dal lañ jëm. Gambie nag élection dafa mos a dal xale bu ndaw laa woon bi nga xam ne Saa Daawuda Jawara jël na. Euh, jël na présidence bi Gambie parce que Gambie ñun dañ indépendant mu teg ci ay at door a indépendant mm-hmm. mais tout le temps que président Daouda Diawara nekk foofu amuloon benn problème euh, dañu ne tey lay élection président Daouda Diawara dem dem dem sànni kartam mm-hmm. sol kilootam som simisam dem marché jënd di muy jënd di dellu këram loolu lañ mos a xam mm-hmm. te fàttaliku na ay aussi ay turu ay l'opposition ku mel ni Père Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu yëpp taa yooyu dag leen doon dégg ci mhm. ñuy dawalal aussi seen opposition donc euh, soo seetee Gambie bu ci temps yooya mu ngi mel ni Cap Vert il di Cap Vert seen démocratie bu dëgër bi nga xam ne barke de boo jaay def nañ élection mhm. président bi nekkoon en place gagné euh, perte na président bu bu bu bees ñëw ñoom ñoo accueillir Macky Sall keroog bi bi bi seen président di di di di waat donc euh, donc loolu lañ mos a xam Gàmbi rëq-rëq yi rek mooy bi ko ku koy Samba Sagnang buggee def euh, coup d'état bi te Sénégal intervenir mm-hmm. ak coup d'état bi nga xam ne euh, kii naka tudd Jammeh def na ko mm-hmm. mais à part yu yu yu yu tar yooyu yoo xam ne yi soxlawuñ ko ci démocratie mais démocratie Gambie dafa waroon dëgër maintenant nag situation bi ñu am situation bu particulier la hmm. nuñ ko wax parce que am na ñeneen ñoo xam ne ñu bëgg nañ dugg au moment où je crois Barrow dafa ne leen woon nañ bokk mais man benn mandat lay def maintenant bon ben je crois que changé na d'avis mais politiciens yi dañ ne dañ soo gëmee li ma la wax yaa tooñ sa bopp loolu lay politiciens yi di wax mhm. mais en tout cas bëgg na ki at kiyaat euh, ngembuwaat mhm. euh, léegi li ñu ci xaw a jaaxal mooy euh, xëy na gars yi ñu ngi ko doon tuumaal ne dafa bëgg def làng gi mu ànd ak jàmme ak ñi nga xam ne ñoo nekk ak jàmme mais loolu xëy na dina doy waar mais en tout cas ñu ngi leen ay ñaanal daal affaire yi jaar ci yoon hmm. affaire yi bu mu am affaire tour deret que démocratie nim nim saxee woon kàb bu mu si hmm. pour que su fekkee ne euh, euh, même Barroso samp de ndëndam suñ ko gagné mu dem yoonam suñ ko su fekkee ne gagné ñu may ko mu toog. et justement buñ ko gagné mu doon probabilité bi nga xam ne souligné nga ko tey jii demoon mu am alternance foofu ca Gambie ndax njottu ngeen ne euh, relation coopération bu stable bi ñu am suñu diggante ak ñoom dana wéy. waaw mais Gambie ak euh, Sénégal benn la. Euh, de toute façon président ñëw aussi indil xejemal kooku da ngay perte sa parce que Yaya Jammeh xejemal na. Mm. c'est vrai que affaire yi avancé wuñu loon mm. mais finalement am na koo xam ne kii moo gën Euh, xam ne dafa bokk ci Sénégal ak Gambie muy Sénégal bi mais defar nañ fara Farafeñe mm-hmm. am na yeneen initiative yoo xam ne mun nañ ko dugal président Gambie euh, amul amul intéret à dumoyu Sénégal comme Sénégal amul intéret intérêt dumoyu dumoyu Gambie mm-hmm. gis ngeen image bi nga xam ne président président euh, Macky Sall day dem ci ay réunion internationale jëli président mm-hmm. kii Baro ñu dugg ci benn avion dem loolu loo xam ne lii rafetlu naa ko ba mu jaxasoo Gambie aussi euh, euh, CEDEAO intervenir mais armée Sénégal jouer le plus grand rôle loolu aussi rafetlu naa ko euh, même yeneen manifestation yoo xam ne ñu ngi koy def ci diggante ñaari réew yi très souvent ay lamb day am Gambie mm. promoteur sénégalais moo ko def et cetera et cetera yu bare bare bare artiste sénégalais yi mm. ñoom ñëpp xam nañ Gambie dañ fay dem man je crois que loolu laa yaakaar ne moo war a nekk sax diggante Sénégal ak Gambie Euh, ñaari yàlla colonisation bi def ñu doon ñaari réew mais benn xeet lañ su ngeen doonee ñaari réew doon benn xeet nag euh, xam nga deret gi moo war a wax pas texte yi nga xam ne euh, beneen nature lañ am na na na deretu sénégambien wax pour que ñaari di ñaari dëkk yi même su fekkee ne ku ci nekk am nga sa territoire ñu doon daal ay xarit benn bakkan professeur Ousmane Sène ñu lay jaajëfal bu baax a baax voilà jërëjëf waay